Euh, local yi weesu euh, ngeen gis ko mo amoon ci taxay bam solo hein les euh, MPR les rénovateurs mu nekkoon njital parti bobé mo ànd ceeg Pape Djibi Fall kooku sax lolo waral mu nekk sax député lolo aussi lu jara a la xamna dina si ñëw ci présentation parti bi ak présentation moom si kon nak mu ngi noonu rapidement on a accusé un peu de retard xamna ni dina si ñëw ci wàllu retard bobu xam nga jógee Ndakaaru ak programme bu chargé ak tamit weekend bi ni muy mel bu gaay yi Dakar wala a génn Sénégal président xanaa tey dund nga loo nga xam ne sénégalais bari dañ koy dund mooy macrocéphalie euh, Sénégal nekk benn bopp boo xam ne Dakar lépp fa la concentré bu ñu waree génn daanaka ñëppay génnandoo problème la benn yoon la wala ñaari yoon dañuy am problème pour génn président alors loolu nga ci am une solution une fois nga nekk à la tête de ce pays. waaw Dakar nag euh, <coughs> position bu mu am foog naa euh, lu mu nekk capital la. Mm-hmm. activité économique yu si bëri dajaloo foofu. Mm-hmm. foog naa bu ñu defee ñun si nii. Mm-hmm. investiture defee ko Kaolack mm-hmm. lu tax ñu def ko foofu parce que dane vraiment suñu waroon wut capital mm-hmm. ñu tuddee ko capital administrative Kaolack la war a ok parce que euh, Kaolack am na port et le fait que ñu am capital administrative nekk Kaolack dina créer des désenclavement parce que soo xoolee lu tax Kédougou Matam Tamba Zones parce c'est des zones très enclavées euh, il faut que nous désenclaver toutes les zones il faut que nous nous si digg si digg dëkk bi. Mm-hmm. soo de Kaolack alors la c'est à 2 ou trois heures de temps de presque chaque région. Mm-hmm. donc nous avons bàyyi capitale économique économique nek Dakar Yob capitale administrative pour vraiment changer. les choses, désengorger un peu. souvent administrative administratif, c'est surtout tout ce qui est affaires publiques, état etc. surtout que Kaolack c'est au centre les régions directement. accès à la mer. c'est ça donc on port pour les biens. Mhm. facilement au niveau du pays mais sous les dee loo Dakar dem Tamba socio yokkee transport ça devient plus cher. et c'est vraiment difficile yenn ki ñom gis ñu sen bopp si réew mhm. parce que des fois nga dem sa Kolda ñu ne naka wa Sénégal. ñoom dañuy génne seen bopp si Sénégal. oui parce qu'ils sont tellement enclavés xamuñu lu xew si mhm. donc euh, je pense que lolu war c'est see commencer tek vraiment les pas pour changer la capitale yóbbu capitale administrative au niveau de Kaolack. Mhm. lolu xeyna entre entrée en matière la woon laata ñuy sori rek Hamidou Thiaw moom la ñu dalal euh, nek kenn ci Sénégal nek kenn ci wa

mais un euh, euh, man fi la Judo, màggee fi Sénégal. Mhm. am bac S1 wala bac C ak mention dem bitim rew dem France def euh, matup sup dem école d'ingénieur jot ligué institut français du pétrole de ligué centre scientifique et technique du bâtiment de si Dakar après formation ingénieur bi liggéey Sonatel après Centif mhm. loolu bu mu États-Unis def MBA en finance les banque mondiale les ci sociétés société aviation les sociétés d'assurance, société assurance Sénégal mhm. donc maintenant, nous sommes au Sénégal créé fi société benn société informatique une société assurance comme nous courtage ici en même temps des di def social mhm nous avons appelé Niti Bobar au niveau de la banlieue dakaroise sur les dugg politique. d'accord donc mon suis wax loolu sama mhm. donc mon naa wax loolu cursus cursus scolaire bi la mais ci politique ndax mos nga politique ndax mos nga adhérer comme ni ko gars yi di waxee man euh, socialiste authentique la won wala libéral la won wala nangam nangam ndax yow mos ngaa en tant que étudiant d' est ce que mosoon nga adhérer ci mouvement politique yoy yooyu politique mosuma intéressé nak xam nga politique mosuma intéressé parce que comme sénégalais yépp dama gisoon ne politique Sénégal surtout en Afrique politique lo xamné corruption le dénigrement diabolisation xaste te loolu mosuma sé nek parce que mané ñun suñu wolé politique pour changer réew mi la aussi politique négative boobu mhm. malheureusement da fi dox et euh, motax nak nag ma dem ci affaire association mais boo demee ba si biir nag comme dugg si langum politique dana ñun lépp lu salte ci politique dañ si génne dañ koy génnee mhm. baña xassante xulu baña bañ a def yenn yi vraiment di proposer la solution to so xolé sa tank bobu non jël motax euh, amna ño xamné ñom sa ne wax ni yow coow nu ngay politiquer Sénégal pareegul pour politique boobu. xamuñ lolu quoi. voilà il faut ngay xastante il faut ngay gëna a. yëngu def buzz ak yoy quoi. waaw te yow. ñom loolu la conseil tu es dans le sérieux quoi. waaw parce que nag euh, politique du théâtre malheureusement théâtre nak défé Sénégal mais du théâtre vraiment dañu wala proposer solution solutions pour Sénégalais gis seen bopp réew mi. Mm-hmm. mais malheureusement c'est des gens qui jouent un rôle. te ci nang nañ xam dara C'est di jaar jaar politique parce que jonne and ak ay nit xamé ni ne ay rôle lañ jouer mais c'était pas vraiment caractère bu ñu de du non, non, ñoom la donc vraiment ñun da ñu ngi si war langue politique bi. d' changer jéem affaire yi di ñaan yalla nak yalla may ñu ci nam d'accord ki kii mooy Hamidou Thiaw moom lañ dalal tay nek kenn ci doomu wa Thiès nek kenn ci candidat yi nga xam ne déclarer déclaré wu ci jëm ci élection présidentielle yi sha euh, allah bari Thiès lool mom nak gis nga tay mom ñëw na mom lañ dalal waye la ñuy sori kañ la idée boobu ñëw kañ nga jàpp ne daal man ci lima nekkone donte politique Sénégal ou Afrique ni muy doxee neexuma nu ñu ko defee neexuma kañ nga jàpp ne daal man war naa mën a pour changer la donne pour indi beneen gisin def benn rupture loolu kañ la la commencé animé. non xam nga man j'étais dans le social c'est-à-dire que Dakar n'est nekk banlieue dakaroise donne politique. Mhm. Euh, doon euh, d'ailleurs association di jàppale mhm. mais politique c'est vrai que sama la xamoo si moom si jiitu. Mhm. sama la xamoo doon politique papis ñu koy au passage waaw papis moo doon politique je mhm. ko doon jàppale si politiques. bi mais gis na ne politique mën na moo efficace association pour changer lu parce que te soo yoree association ce moyen bopp ngay jàppale nit D'accord. te Sénégalais Sénégal rëy na bii peeru rëy benn nit mun ko régler donc je pense que état mun si mën a yenn yi il faut que c'est les lois mhm parce que am na yoo xam ne loi moo ko mën a dindi. Mm-hmm. surtout wàllum corruption euh, yooyu wa loi mën na si def lu bëri. Mm-hmm. surtout dimbali nit yi parce que tey mën ngeen def lu ak euh, au niveau de l'Assemblée nationale. Mm-hmm. donc moom si le dugg ma ko ñun vraiment. avec les moyens de l'État, état mën nga change lu bëri. moo tax ma ni bon gis naa nu muy mais gis naa si ay failles. dëgg la parce que politique bu ñuy ñoom bu ñuy politiquer neex mu woon. Cela là ne un parti politique parce que ku bëgg politique dëggantaan il faut organiser ok il faut avoir un parti politique il faut avoir une représentativité dans tout le Sénégal. il faut être euh, au niveau des médias et des réseaux sociaux. Mhm. il faut avoir un programme. Mhm. et vraiment si nous avons vraiment structuré structurer un vrai parti politique. pour que nous pas gagner les prochaines élections. donc depuis la conception du parti on a participé à toutes les élections. Mhm. aux élections locales on était dans trois communes. Mhm. Djobas, comme nous ko waxee avec Koli Salé ak euh, Djobas, Diobass deuxième. Mhm. Saré Colis Salé nous fait deuxième, mhm. euh, Vélingara nous fait quatrième. Ok. Donc euh, on a eu 16 conseils Comme début, hein Comme début, hein ouais, Comme début. <laughs> Oui. Donc on a eu 16 conseils municipaux. Donc euh, surtout au niveau de Conda, c'était des vraiment c'est un résultat très encourageant. Mhm. parce que dem foofu Kolda c'est benn commune boo xam nous ñoo ngi lay soog di xam. Mhm. nga jël fa deuxième pour man c'est un très bon résultat. non la demee je pense mon nañ ne d'accord parce que foofu nga fekk baax say c'est ak say foofu la la nga fekk baax Thiès fa nga bokk mais bu ne ne pas Coly euh, un peu pas un peu loin de euh, dans dans dans les profondeurs du Sénégal lu xew lan lu tax nga tëb foofu yëpp dem ba non hein? parce que nous créer créé parti bi lu njëkk a def. Mhm. mooy dañoo wër Sénégal bi dem région bu nekk installer fa bureau ok quand on a vu nos représentants travailler nous avons eu une chance de gagner élection élections. donc nous, ñu investir et on les a aidés un peu côté programme à côté communication pour nous améliorer. Mhm. et machallah on n'a pas regretté parce que nous day daf ñuy rek ne testé ngeen. Mhm. ngeen politique. est-ce que ça a marché et on l'a testé et ça a marché dans les communes. Mhm. donc euh, l'eau de jox tamit la le chemin à suivre sous les ngaa mhm. c'est-à-dire que dama nit yi jege leen un programme pour xam da mhm. c'est faisable et c'est faisable en moins de cinq ans je pense que le soccer sénégalais Sénégal c'est faisable et ça a marché au niveau de Kolda. pourquoi pas dans tout le Sénégal. d'accord. Euh, ba tey euh, mbokk yéen seen émission pencum Thiès du Thiaw euh, président MPR les rénovateurs moom moom la ñuy invité xam naa dinañ pourquoi le choix de MPR c'est quoi MPR lan mooy philosophie bi hein? nan lan moo la inspiré ba nga mel ni ko un panafricaniste ñuy gis si yow xëy des fois benn Cheikh Anta Diop ben Mamadou Dia hein, benn Mazmoud Diop les partis yi nga xam ne tey seen philosophie d'une part hein, d'une part sénégalais yi épouse wuñ ko à 100 mm. parce que ñun ñëpp ñi ma lim noonu parti gënu leen mais <laughs> daanaka dañewuñ fi dara yow nga ñëw xaw a jaar fi ñu xaw a xaw a épouser cette seen seen seen philosophie c'est quoi lan lan moo la animé jaar foofu. non xam nga li ñu wax rek voyager soo voyager da lay yee parce que euh, def 14 ans bitim réew def sept ans en France def 7 ans États-Unis mm-hmm. te soo demee gis ñoom lu ñuy dund.

donc ñun avons c'est très simple. Mm-hmm. éducation c'est vrai que côté éducation donc nous euh, mm-hmm. il faut investir mais c'est pas la seule raison. parce que nous avons une matière première nous ñu Nous avons nous avons Arabie Saoudite. Mm-hmm. pétrole bi am plus de Sénégal pétrole am donc. Euh,

te dina mën a créer opportunité ba nit yi di fi toog. moo tax gars yi suñu wax waxoo émigration man que c' est normal soo leen jëlee alalu réew mi jaay ko. Mm-hmm. mais c' est normal ñoom jógee suñu réew suñu réew dem réew bu alal ba nekk. dem dem récupérer ji waaw d' autre mais su noonu la seen alal ngeen ñu si bàyyi. waay ñu si dund di si gis seen bopp. mais xam naa Sénégalais yi duñ jël bato bi parce que Sénégal gisuma koo xam ne am na fi kër. Mm-hmm. am am xaalis bu bëri am oto yooyu. dem di jël gaal yi du ko def. Mm-hmm. mais désespoir moyen du lol mhm. donc ce rôle on a peut-être euh, des chances on peut se développer mais mhm. avec les bonnes personnes tamit wat jappelé Sénégalais avant ñu étrangers. étranger mais mhm. malheureusement do nek dëkk bo xamné étrangers étranger ñoo ko parce que soo tay exploitation de l'or chinois et australien les usines. moy lol bu ma si wax ay tour ça mais so xoolee les plus grands. oui

mais ils n'investissent pas chez eux. Euh, nous sommes dans le monde planétaire, un, village, ouverture, libéralisme, marché, compétition, euh, comment ça m'a fait douma ou comment ça m'a fait Tay, l'ouverture bob mo waral tay étrangers ñeu daw 100% dund au moment où ñen ñi ils préfèrent garder leur argent dans les banques, duñu investir les grandes surfaces là. Gis nga ba mu ñëwé fi defo na bruit, ci la sax y ñi commencé yew né attends li mën na nek def ben marché bo xamné dang fay jaay lepp. Et pourtant euh ay yeen amna sénégalais yi fi nek

ñu tuuti yàqal ñeneñ parce que ñu tuuti ñoo triandé légui dem na ba wëltuñu ben sénégalais mais état su ñoo né man ma leen di garantir sénégalais su fayulé man ma fay leen mhm. après man ma dem top sénégalais bi naa banque yi seen xel dina dal parce que tay duma mu la ko ndëbb ñun tay amna nañu ben société ñoo ngi euh, def prêt bancaire pour jënd ben local pour def ko mhm. seeni siège mhm. mais léegi ma def un an banque ñu lebal ok ta xamoon naa man sama sant su nekkoon beneen tur <laughs> waaw mun naa mu gaaw jotoon naa xaalis bu yàgg ok donc pour jot capital capitaux yi des fois pour entreprendre c'est très compliqué mhm. te tamit entreprendre c'est très difficile parce que tey mën par exemple si on parle prend le cas de Diobass mhm. nga ni cas de Jobas il faut bien investir faut bien un bureau euh, au niveau informatique peu importe mhm. mais t'es sur ko ubbee comme kan mooy jël sa service parce que qui di bay du faut foofu di la am de kaay dafa am site du le faire. defal dëgg la ko wax du ñëw ne am lu kaay dafa am logiciel donc tu es obligé yow

donc yow tey soo né man damay liggéey dama bëgg sama entreprise yokk damaa bëgg yokk sama euh, recette sama revenu. Mm-hmm. pour euh, embaucher ñu du bëri. Mm-hmm. mais tay euh, su ma ubbiwoon benn agence disons comme je suis dans l' informatique ou ben agence à Diobass. Mm-hmm. mais xam naa ne loolu damay perte xaalis mën a dem ba société bi teg parce que xam naa ne foofu damay fay salaire. mais xaalis du fa duñ dugg. alors que tey su ma demoon ubbi ko Côte d'Ivoire wala ubbi ko Dakar. dina day law parce que foofu la nit yi am recette. recettes. te que dafa am zone yoo xam ne comme ni ko defee Sénégal c' est des zones purement agricoles et soo dans certaines zones à part zone des par exemple à part mbay mm-hmm. À amul dara nit yi donc euh, si vous dee da ngaa nekk si le monde ak euh, si affaire agriculture mm-hmm. mën investir foofu mais su nekkoon si affaire agriculture l'agriculture, c'est difficile d'investir parce que amul infrastructure yi mm-hmm. euh, déjà dans am zones zone yoo xam ne mooy rien que pour am la fibre optique amu fa ok amul fibre optique. oui donc c'est très compliqué en fibre optique. est ce que tamit accès à la terre tamit D'une part boo ñëwee bëgg a jënd wala est ce que dañ la ko yombal la ñu jàpp ne noonu da nga ñëw récupérer suufu gars yi wala nangam sang est ce que loolu aussi xam nga idée aussi te pourtant ñeneen ñi nga xam dëkk ñu fa dañuy am la nga xam ne yow mi fa dëkk mënoo ko am d'une part. non foofu xam c'est tout à fait normal parce que li xew Ndingler. Mhm. foog naa dina tax ñu bëri gën a méfiant parce que Ndingler soo gisee la famille Ngom doon ñoo jëluma 300 hectares. Mhm. C'est des villageois pauvres te ñoom loolu la ñuy dundé, suuf la dundé. dundee mhm donc euh, il faut que ñi tamit am xel par exemple man mënoon naa dem ci àll bi di jënd suuf mais du ma jënd suuf parce que dama ne man soxloo ma ko ñoom ñoo ko soxla nañ ko bàyyi. Hmm. yow soxlawoo suuf. yow lu nga soxla moy ben espace bu ndaw bo xamné yow la nga soxla fi fibre optique nga soxla. Hmm. ordinateur nga soxla. Hmm. tu as besoin d'une main d'œuvre qualifiée pour liguey mais suuf bi yow du sa liggéey soxlawoo ko. donc soo ko jëlee ngay yaqal ñoo xamné ñoko ñoo ko soxla. xam man tey béyu ma. du ma béykat donc soxlawuma suuf.

te tamit soo amee yenn recettes yi tamit xool lu ñu mën a jàppalee suñu bu nu nekk. Mm-hmm. mais ñi nekk suñu zone tamit ñoom am tamit dañoo war a jàppale parce que tamit affaire jàppalante la. Mm-hmm. parce que ni tamit su la jàppalee nga koy seetaan prochaine fois ëllëg du soor la jàppale ne bàyyi ma jàppale keneen. Mm-hmm. et vraiment nag euh, je pense que ñun ñëpp suñu manko nek fenn ñuy jappalante ci biir. Mhm. ki nek Dakar di embauché euh, Sénégalais en premier balaa muy jël étranger. Mhm. ki nek tamit ci àll bi ne mhm. balaa may jaay sama ci euh, sama récolte. étranger naka naa jaay ay Sénégalais ñuy jappalante ci biir foog naa dëkk bi dina avancer dina avancer mais malheureusement ku nek su xoolee sa intérêt. ne man euh, tey jël benn burkina bi moo gën a moins cher que jël sénégalais bi. que la ne man jaay sama gerte bi chinois bi moo gën ko jaay ko sénégalais yi ku nekk di xool intérêt dëkk bi di doy yéex a dem.

Euh, jël xaalis boobu nag di investir infrastructure. Mhm. ça fait 24 ans que nous ay libéraux. oui mais soo xoolee infrastructure baax mhm. mais infrastructure télé kenn du ko lekk. ñi mhm. tey nañ donc je pense que comme ni ñu waxee les gens de droite et les gens de gauche. les libéraux et les socialistes. je pense que nous avons on a besoin de centristes.

parce que am nga liggéey liggéey boo xam ne dafay fay salaire bu baax. Mhm. foog naa lu bëri dina tegeeku si yow di nga mën a faju di nga a lekk di nga mën a naan di nga mën a am sa kër di nga mën a fay scolarité sa doom. Mhm. mais malheureusement nag liggéey bu fekku salaire bu baax moo bëriwul. Mhm. tey da ngay xool trois cent mille tey soo demee euh, États-Unis su ma jumulee. seen SMIC ay à peu près sept cent wala huit cent mille la. oui muy de base bu gën a tuuti salaire de base. Si le Sénégal fait un colon. C'est un colon. C'est un que Qui est le plus faible aux États-Unis? Les Sénégalais. Les Sénégalais, c'est ça. Le colon est installé au football. Si le Sénégal fait un colon 35 000. Il fait un colon de 35 000. Je sais que je suis chef de chantier. 60 000 ont fait Dakar. Oui. fais un colon 30 000. Je vais donner 30 000 par mois kooku su si tak jabar mhm. am si doom mhm. bëgg see faju bëgg see dund day metti si mom du sotti ni di jay si mbedd bi même chose da ngay gis kuy liggéey su ne deux mille mhm. mille cinq si génn donc vraiment dañuy wax tout le temps liggéey dund bi dafa cher mais faut il faut ñu focaliser si liggéey bu baax liggéey bu baax nak du nga amé c'est très simple man ko wax tout le temps moy euh, étranger fi nek ngeen balma mais Sénégal ci ni réew la balaa ngay jàppale jambu nga jàppale Sénégalais soo demee tey France. Mhm. bëgg a liggéey. Mhm. da nga lay laaj permis de travail. oui soo demee États-Unis ni da ngaa bëgg a liggéey da nga am carte verte wala nga am visa. oui tey soo demee euh, di laajte euh, visa bu ñu tuddee H1B bi pour mun a liggéey la. Mhm. yow mii di jël kooku parce que il faut kii de la jël moo la mën a sponsoriser pour nga jot si. mais pour sponsoriser sponsoriser nit bi. il faut yow nga prouver ne. Amou beneen américain bu ko mën def motax may jël ba keneen étranger. oui donc ñoom dañoo dem bloqué affaire bi. Mm-hmm. jité sen doomu réew. ok nu mu def ko te ku nekkul Sénégal sénégalais. Mm-hmm. pour liggéey da ngaa soxla permis de travail. du mm-hmm. ñu ko tere. oui. c'est bon dañuy jàppale sénégalais en premier balaa ñu jàppale jàmbur. les permis de travail. oui ne tamit bu ñu fexee def tuuti protection bi. protection bi mooy lan nag mooy.

yaay yeneen dëkk yi comme ça xaalis dugg si ni si ni si ni dëkk mm-hmm. tey Maroc di ko def ak Zara Maroc tey dafa am usine Zara di dafa yére mais yére yooyu su ko defaree ba pare da koy yóbbuwaat Europe di ko jaay donc Zara moom su ñëwee Maroc main d'œuvre lay utiliser mooy nit la lay mm-hmm. seen doole ñu leen di fay mais su lu euh, paree du jaay produit foofu mm-hmm. parce que su doon jaay yére Zara dina yàqal nawkat yi Nous avons tous Nous investir comme nous fait au Maroc mais nous ñu compétir comme nous comme fait Sénégal mooy cochon euh, mhm. parce que si nous ñëwee di Sénégal les mhm. su Sénégalais di leen fait 1 milliard nous dina fait 2 ou 3 milliards mhm. donc dépensé un am deux yi Nous yóbbu ko France Qui pète le Sénégal Oui. Moi, ñu Sénégal. ñun nous ñëw compétir. La devons solution investir comme le modèle de Zara. tey état def une zone économique spéciale ces zones économiques spéciales nous devons faire. yooyu foog nous jouer le rôle de commercial de courtier de les entreprises étrangères Quand kaay leen hmm. créer ay sociétés après ngeen dem jaar ko seen un mais pour leen jaay Sénégal comme ni hmm. ngay des Chine ou ni ngay koy defee hmm. mais nous, lu Chine nous leen gën a donc le salaire même les NEC, mais vous gagnez en transport et en rapidité. c'est ça donc loolu il faut que état dem jaay ko ne nag ñun suñu solo ñoo fi def Sénégal ça va être les mêmes conditions qu'en Chine mhm. c'est-à-dire que usine bi ngay ubbi fii moitié bi sénégalais yekkee moom beneen moitié étranger yekkee moom mhm. mu nekk cinquante cinquante loolu day tax tamit sénégalais jàngaale xamaale métier am transfert de savoir ou transfert de connaissance mhm. loolu benn deuxième chose bi tamit mooy frais ñu jàpp les entreprises qui sont là parce que am na ñoo xam ne ñu ngi bëgg a décoller mënuñu décoller décoller parce que amuñu accès aux capitaux banques yi du leen lebal ñoo nag doona wala fexe ñooñu banques yi jàppale di leen euh, financer état nekk seen garantie. Mm-hmm. non seulement les banques mais les fonds d'investissement, parce que loolu meuna a ñu bari mais pour terminer gis nga li am yeneen dëkk war na ko mën am tay Sénégal won nek dëkk bo xamné day dañ dafa ay télé ay radio, ay ordinateur ay congélateur ay frigo loolu lu la savoir faire mm-hmm. donc nous former suñu doom yi vers les métiers d'avenir. oui yoo xam ne ëllëg ñoom dina ma liggéey si loolu mm-hmm. mais malheureusement tey nos jeunes qui sont là dans leen yóbbu a ñëpp série littéraire la tey bac bi 52 des sénégalais yi demoon bac 52 ñu ci am moitié bi xaj à peu près. ci hmm. candidat xaj yi am. oui si xaaj 80 est littéraire la. Hmm. donc nous dafa changer. dëkk mënu deful bac ay littéraire. c'est ça. ngeen baal li littéraire bari ngeen trop. Hmm. il faut ñu waxante parce que lu may wax ni du langage politicien parce que politicien moom waroo xas. na ñuy wax. mais nag 80 pour cent de littéraire du il faut mais est-ce que l'on commençons avec les ISEP ak yooyu de nañu état bi des effort dafay ISEP des formation professionnelle il y a tellement de gens. est-ce que est-ce que c'est pas ça. non je parle même pas des formations professionnelles. ni am bac. te un bac nous yób pour la nga def langue étrangère hmm. sociologie histoire géographie à part que prof le indi si alors que des solutions la nous ñu dem des ingénieurs ingénieur mhm. di créer ay téléphone di créer et puis loolu dès le bas âge hein, je pense loolu nga bëgg a wax dire que ñu teel ko dans au lycée au CM comme ni y yeneen réew yi defee mais quand on a am ba nga am ba ñu commencé nag bëgg la ko forcer loolu dafay xaw a métti aussi c'est impossible ñu orienté parce que nos former formation littéraire hmm. am ku ñu former formation littéraire mon. Euh, les mais euh, parce que troisième BFM qui commencé di S ou L S1 mm-hmm. S2 mm-hmm. mais par exemple ne par exemple ni euh, bac S une mm-hmm. bourse c'est cinquante ou ni bac L une bourse je pense qu'avec la motivation financière les c'est une dañ de pousse ñu dem les bac S. Mhm. ça nous arrange parce que mhm. le main de qualifier bob dañ ni mhm. day tax. investissement des day yomb ci dëkk bi day tax tamit parce que tay so amé informatique mën nga sur les sites comme euh, freelancer gars yi la commande ay logiciel ngay liggéey fi à partir Dakar lo soxla ordinateur ak internet. Mhm. comme ni ñu koy defee Inde. Inde soo gisee y' a beaucoup de gens yo xamné ne dañ dem si indien di len def laaj ay logiciel. Mhm. pourquoi pas xam-xam boobu ñu suñu doomi aduna bi ñeu fi di d'accord d' accord am lo xamné lu bëri ñun état bu ñu ko liggéey dès le bas âge formé seeni doom benen problème bu ñu am tamit c'est euh, le problème ñu xamné euh du problème ça mais il faut que ñu xool. Mhm. Euh, les daara il faut ñu moderniser ko. parce que daara yi tamit foog ñu jàng a ay métier. waay boo dee daara. waay parce que gis ko gën daara def bac arabe. Mm-hmm. Euh, à part professeur lu lu mën nekk bëriwul. c'est ça te xale boobu nag kiy jàng def bac arabe il nga jox ko tamit ay options yu bëri. waay ne man am naa bac arabe. wàcc naa kaamin hmm. mën naa firi kaamin lépp mën naa ko hmm. mais tey su neexee bëgg a liggéey ingénieur war naa mën a liggéey ingénieur parce que tey jàng naa informatique jàng naa langage C wala jàng naa de programmation jàng hmm. naa nekk financier war naa a nekk financier parce que boo def bac arabe damaa jël euh, arabe ak F donc ma ne arabe finance laa jël naa liggéey si banque yi naa def euh, euh, plan d'affaires et

xam axu xam sa diine mm-hmm. euh, weesu nga mën a xam lu alxuraan mm-hmm. di wax exactement mm-hmm. nga mën firi mais tamit jàngale yeneen matière oui xam di nga mën am qualification personnelle loolu nag day tax ñu war a toog dafay waral nag ñu toog ñoom ñëpp benn par benn mooy laayeen yeeg xaar yeeg tijaan yeeg murit yeeg Medina ne li bëgg def voici les normes composées li ñu jàppale pour mën daara yi d'accord et vraiment foog naa que defee loolu dina tax tay ëllëg suñu am avenir pour d'accord d'accord Moi, projet bi am na solo xamna ni le temps on a perdu déjà 17 minutes euh, depuis le début. Je suis daf ñu il reste encore 10 minutes à parler ensemble. Mhm. ci émission Pencum Thiès di que le euh, euh, président MPR en mars pour la renaissance moom dit dalal tey di Hamidou Thiaw dalal président ñu wax ci politique maintenant loolu aussi la laaj Sénégalais jox la bop épouser ce projet épouser sa philosophie. surtout à Thiès nous avons fait ñuy déglu nga euh, souvent euh, Thiès hein, on a fait des investigations des fois, micro mais la plupart dañ naan kan c'est quoi le problème Nous avons du Thiaw wàcc Thiès comme ni nga def ni tey di gën a fi bëri tànk gën fi mën communiquer parce que tamit luñuy wax rek mbéy si yooyu tànk quoi qu'on puisse dire xëy Sénégal nga soxla mais aussi Thiès c'est une ville à ne pas négliger surtout nga nga fekk fi baax lu lu waral amul Thiaw def fi quartier lam def fi bazam gënu fi bari tank dafa ragal xeyna ñi fi ñi nekk comme li ñu naan réew mi mom Thiès wala je ne sais pas en tout cas gis nañu dal da nga mel ni ko xawa daw Thiès xeyna jobas xaw nga fa mais au-delà euh, des régions de Thiès Il y a biir a biir bire euh, à part Dakar mais Thiès gis ñu fi nga bari fi lu non Thiès on était là on a fait des portes pour plusieurs fois à Thiès. Mm-hmm. Euh, on a fait des affiches.

am na te candidat yoo xam ne su suñu Thiès gagné ko te def ñu lu ma def. Mhm. c'est communication moo jàll wala gars yi la comprendre gul. wala gars yi la miinul. xam nga politique des fois du yaa jaay xam nga tey su ne man marché Thiès yëpp dugg nañ fa. Mhm. indi fa ay camions une centaine de personnes dugg marché di Thiès yëpp jox leen seen i flyers expliqué leen. Mhm. dafay affiche dafay. est-ce que loolu doy na. est-ce que jege nga socialement événement am religieux euh, baptême wala wala événement malheureux ñu gis Hamidou Thiaw taxaw wala ay marche wala dara xew ñu gis nga ñëw au premier plan gamu magal ñu gis nga ñëw yoyu est-ce que yaa ngi koy def investissement mhm. buñ def sur le terrain comme na politicien sénégalais yu ko def wu parce que ñu mëna a wax ne ñoom tey dugg nañu marché Thiès yépp dem nañ fi ay émission si un an ay 4 wala 5 émissions. Mhm. def fi porte à porte ñu ko mëna def wax né def nañ ko wu mhm. mais malheureusement nak

du jour au lendemain <laughs> donc politique des fois vraiment dommage hmm. parce que nga je programme ah, parce que ont intéressé intéressé hmm. mais intéressé niveau de popularité qui intéressé ah ok la popularité d'habitude polémique Voilà hmm. euh, les radios et les télé te radio télé n'a ñom lu ñuy jaay ñoom polémique la ñuy jaay parce que danañ plus ñuy jaay polémique plus ñu am audience mm-hmm. donc comme c'est des radios privées audience ngay wut tax audience mo lay jox euh, publicité mm-hmm. donc yow polémique moo la intéressé tay mo wax la benn affaire bu yom tay mëna créer polémique mëna yow suba saga Macky Sall mm-hmm. ñu commencé di tej tëj nga yu bari xam ma ne boy wax na deug Macky Sall fi war joy nga siiw ñëpp xam la mm-hmm. gars yi ah Thiès a jógee ñoo waa Thiès ay kër yi ñoom ñoom ay bañkat lu mës a nekk mm-hmm. waa Thiès ñoo jàpp si <laughs> combat <laughs> am buzz quoi Thiès commencé la épousé gars yi commencé la bëgg jàpp si jàpp si combat donc des nag politique Sénégal moo moo xaw a demee noonu mm-hmm. instant bi ku

nga stack brassa wala nga sol casquette taxaw ci kanam ne leen ayca gars xam nga yoyu aussi mom la nga xamé Sénégal soo bëggee yéen Sénégal également nga dem wacc wàcc terrain bi ko def non dina metti pour nga jël Sénégal xam nga ñun ñoo ngi wàcc ci terrain parce que suma né man def na 3 wala 4 fois tour du Sénégal mais suñu wacc ci terrain comme foog naa dama kaa wax si début suñu idéologie ni du xulo du xex je pense que proposer ay solution pour Sénégal gis s'en bop mëna am liggéey dindi corruption bi euh, fexe justice bi nekk une justice indépendante nit yi mën a et cetera

parce que gëm naa ne du violence mooy régler problème yi. gis nga suñu meilleure arme mooy lan suñu carte d'identité. parce que moo ngi nii tey da gis ñoo xam dañuy xeex ba solo fu ñu mujjee kaso yi du am dara. li meilleure arme mooy lan suñu carte d'identité bàyyi ba le 25 février jot ñu dem nànk si urne yi tànn ku gën a baax les programmes ku gën a nekk homme d'état. ku gën a téye ku gën a baax les programmes nga jox ko xool lu muy joxe mais su dee au lieu ñu ku les programmes. dañuy xool ku dàkk xeex wala ku dàkk xuloo wala ku dàkk mën a ku gën a mën a wax hmm. mais est-ce que ça vaut la peine de faire la politique alors pour faire que démarche boobu nga jël te gis ni sénégalais yi la plupart loolu xamuñu ko ah nay dal sànni xeer taal pono ak yooyu euh, voilà kii dafa war a wax dafa est-ce que loolu vraiment di mu le lay courage de continuer toujours faire la politique. quand je fais la politique je le fais pas pour moi je le fais pour nos enfants. Mm-hmm. parce que euh, peut-être man am naa chance. Mm-hmm. amu yenn problème mm-hmm. mais tey Sénégal bu ma gis bëgguma sama doom ma vie. bëgguma sama doom te ñu ne su feebaree foo dem France di faju mhm. peut-être mën na am moyen yooyu mais su lu la gënaloon mooy def ko si biir dëkk. dëgg donc suñu doom ne ñuy xeexal. Mhm. donc yow da ngay peut da ngay ji benn garab. dëgg la man tey su ma defee sama politique ba sama carrière politique jeex. Mhm. ñu ne tey am na au moins trois wala quatre partis yu épouser les mêmes idéologies. que yow pour man kontaan naa parce que dama ne man tey change naa.

on a fait la même chose on a parrainé donc euh, fait nous une caution semaine bi c'est ba j'ai une attestation mm-hmm. donc semaine bi sûrement en milieu de semaine ou la fin de semaine prochaine on va déposer nos dossiers complet c'est-à-dire que les parrainages euh, la clé, le mhm. euh, certificat de nationalité et tout ce qui va avec, des postes mhm. au niveau du conseil constitutionnel. Mhm. Après, il le 28 pour le tirage. Donc, euh, moi, vraiment, je pense qu'on est confiant, on est signé candidature d'un diable. Donc, suis suis un problème parce que l'Uni d'Afrique, moi, en 2021, de nouveau Sénégal, il un seul bureau tay xam nga Kolda du am problème parce que foo jëloon deuxième am fa des milliers de voix. Mm-hmm. am fa ay parrainage yu métti. Tamba am nga fa benn base bu xaw solide. am nga même chose café, am nga ko mm-hmm. Kaolack am nga ko Thiès. Mm-hmm. am nga ko Dakar. am ah, ko ah Thiès hein, ah Thiès parrainage am bëri na fi. Mm, macha allah ah, rien qu'au niveau de Dioba je pense qu'on a plus de 10 deux mille parrainages. oui donc euh, sans compter Thiès Ouest sans compter euh, Thiès sans compter Tivaouane. sans compter Mour ok parce que Tivaouane tamit macha allah ñoom tamit def na liggéey bu rafet si profité di les remercier si liggéey boobu. euh, Ziguinchor tamit maanaam si c'est ñu doon parrainage yu bëri. donc ñu hmm. sant tamit si liggéey boobu. Hmm. donc vraiment au niveau des régions foog naa. donc le maillage national def ngeen ko quoi. non des na nag parce que Matam bëriwuñu parrainage Matam. Ah ah. Matam des bëriwuñu Louga tamit bëriwul. ok waaw Saint-Louis tamit des na mais centre sud-est ak est Machallah. allah. macha allah ok kon daal focus foofu foofu liggéey foofu la war a gën a accenté wu Louga Saint-Louis Matam Matam ak Thiès hmm. Matam ak Thiès parce que ba léegi Thiès des na parce que ah oui Thiès sa base la ah war na mun a yëngu mais aussi li a la wax aussi ci bàyyi xel parce que aussi gars yi naan non Amidou il est Thiès mais on le voit pas à Thiès Euh, il aussi faut que nga gën nga ah, non il y a euh, des madame Thiès Louga. Mhm. madame Thiès Louga ak moom mhm. ah, c'est des zones où on a une représentativité là-bas mais. mais d'accord, d'accord. Dakar capital aussi. c'est normal xam Dakar mo foofu nga deuk ok donc euh, am fa dara du métti euh, au niveau de Dakar tamit c'est des rajo et lay télé ñoo lay jaay. oui donc radio et télé ñoo koy jaay mais so xolé Dakar. Mhm. dafa ben bipolarité depuis 2021 oui entre euh, Pastef. oui Benno. oui donc ku la dafa am base bu Dakar def wax lu ko neex. donc ñoom dañuy wax deug rek. Mhm. ne Dakar instant yi c' est entre les ñoom ñaar ñu koy oui Pastef ak Benno. Mhm. ñu nak peut être que c'est quelques mois échange changement dina am. Nous ngi def lu parce que tey sax def porte à porte. Mhm. parce que chaque jour ñoo def porte à porte au niveau de Dakar. les gens nous connaissent. Mhm. mais bipolarité boobu c'est surtout présent à Dakar à Diourbel. Euh, ñaari zone yooyu moom foog naa ñu ñaari candidature euh, présidentielle doomu Moujabas, Alioune Sarr ministre. ak Amidou Thiaw loolu ban dangan nga ci def noo ko gisee loolu ñaari doomu Jobaas waa nekkee ci ci langue politique. non amuñ euh, gisuma ko dara parce que bokkuñu idéologie. Mm-hmm. xam nga ku nekk système ak anti système du benn. Mm-hmm. xam nga man euh, tax sama dugg politique bi. parce que mm-hmm. maa gis ne les libéraux li doon def. taxul dëkk bi développé. que même moom si dafa dugg si avec les libéraux ànd ak donc on été formé par les libéraux. Mm-hmm. donc man ce système là je suis pas d'accord c'est une personne qui vient de ce système. Mm-hmm. donc euh, c'est des idéologies différentes tamit loolu politique. parce que mm-hmm. politique moo jox nit yi choix. ok waaw man je représente le secteur privé je suis anti système mosuma liggéey ce gouvernement mosuma laal alalu sénégalais yi mhm. mosuma jël alalu sénégalais qui mhm. kii nag moo liggéey na ce gouvernement bi ne peut être ànd naa si ñoom seen affaires yi ànd ma ñoom seen affaires yi mhm. mais tey bëgg naa jël nguur bi da ngay jox sénégalais ñu tànn parce sénégalais ñu xool ñun est-ce qu'on veut la continuité un ancien ministre ou on veut la rupture, avec euh, ah, du secteur privé. Donc euh, c'est choix des Sénégalais. rupture dès encore relève relève la rupture ami ami ami ami euh, ami Babacar non la relève Babacar pour moi. école <laughs>

ibrahim Ibrahima di la de bu baax di remercier si invitation bi di ko rafetlu mhm. di nuyu waa Diobass yëpp di nuyu waa Thiès di nuyu waa Tivaouane ak waa Mbour vraiment di sant Walfadjri est vraiment une référence si mhm. radio télé yi donc di leen sant bu baax si invitation bi jërëjëf jërëjëf tamine tamit mbokk yi kenn du yéen safo bi ngeen safo leeru jamono la voix des sans voix nekk fi ci quartier carrière rue Idrissa Camara jangine ngeen benen sam samedi ben invité di gërëm bu baax di sante euh, Mouhamed euh, La Dépêche mang ngi koy gërëm di ko sante mais également di wax Mouhamed Khalifa Diaw joyeux anniversaire tel anniversaire Yaram ñu ngi koy déggee bu baax a baax suñu responsable local mu ngi noonu moom it jàpp ci liggéey bi mu ngi ci commercial bi mu ngi ci information bi mu ngi ci technique bi mu ngi fépp Mouhamed kenn du yow Mouhamed Khalifa Diaw yokk ba yëg ko wér-gi yaram bu baax a baax a baax ak voilà ñu léegi bëggee bu baax di la sant kon nag mbokk yi jaa ngeen jëf yéen tamit